Big Pato Big Pato mais Big Pato la moo waral nga jugee Sénégal ñëw ba Dubaï pour préparer sa combat yow ak Wouly ah, ah lam fi mu toll nii amatul caaxaan amatul kaf. waaw waaj bu la dóoree dafa lay lam yi dafa naan dóor naa ay poche yeeg mooy uh-huh. lu mu ñu jaral rek lu mu ko jaral benn jaral na ko junni ñu bu ñu ko jaral dina jaral ñu mille. fii. ñëw bu fi ñëw aussi réccu bi gis nañ bagage parce que Modou Lo jaar na fi Reug Reug jaar na fi te gis nañ résultat yi. ok ok ok normal tey ñun dafay ñëw fi xool fi am. mais noo gisee noo gisee Dubaï noo gisee Dubaï. noo Dubaï nee na vraiment nee na moom vraiment noo gisee ak atmosphère bi. ak salle bi comment. ñu ngi may xool xaw ma nu mu fa demee nii. waaw non dañuy dañuy yéemu parce que bu ñu gisee du ñu gis nit ku ñuul koo xam ne war na day nii parce que ñun ak ñoom bokkuñu. Ah, ak laaj quoi waaw ñun dañ leen a gën a kii de. waaw dañ leen gën a taxaw quoi voilà voilà. xoolal Alaaji Ndiaye xoolal Alaaji Ndiaye mooy loolu quoi voilà gis nga Alaaji Ndiaye moo ngi noonu gis nga ah. good man good man thank you. Yes, yes. apa kau mungkin ini big batu guys di kena jump man. Okay, Dubai di prepare kombam. Oh, Wah, agbena suwala deh. Wah, aku cipa best. Aku Wah, ini nega fit di door, kau di door aga ini di cup di fore kuah jambar lo kuah. Wala, jengko kau deh. Semisal mana fit jaya affair kuah. Wala, fuck. मैं भाई मैं भाई बाटे बिजत सी बकुल बिजत सनेगाली रे uh, let's go come come come uh, let's go अरे go stop let's go अरे go go one अरे easy two three, go. Four, allez go. Five, six, allez. Seven, allez go. Eight, nine, allez go. Ten, allez go. Eleven, twelve, allez go. Yeah. Four, six, five, allez go. Six, encore. Seven, encore. Eight, go, allez. Nine, encore, go, allez. 10, allez go. 11, encore, allez. 12, allez go, allez. 30, encore. 40, that's one. And 50. Allez go. 1, 2, allez go. 3, allez go. 4, encore, go. 5, encore, go. 6, allez go. 7, encore, go. 8, encore, go. 9, when you go, go, allez. 10, encore. Your video? Yeah.